والقلم وما يسطرون bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu boobule ba yeneen yeneeni jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal C3S mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër docteur xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yépp agsi nañ te saa ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee C3S mi ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun immunité parlementaire bi ku nekk xam na ne mbokk yi beneen actualité ci ba tey ci actualité boobu lay jëm moo jëm ci euh, ku nekk xam na ne mbir mi bi mu amee coow jub na ci immunité euh, parlementaire bi nga xamante ni Ousmane Sonko moom moo saako à ce mu dem ñu dindi euh, moom mbokk moom moo ne tant que ba ñu dem wuy ji police gendarmerie mais bu ñu dinee dix heures immunité parlementaire dix heures cinq mu dem présenté wu ça veut dire quoi dafa am mbalaan muñ ko muur ñu wax mbalaan kirlaay te député yëpp am ko maintenant pour man aussi Ousmane ko foofu damay ñëwaat ci mu su fekkee ne leer na ma ne liñ may jiiñ man defuma ko mu leer na ma liñ may jiiñ defuma ko damay dem jébbal sama bopp yoon ñu càmbar ñu def liggéey bi bu dee leer na ma ne maintenant euh, comme nag am na ci droit yoon moo ko may li nga xam te moom moo di

même ak Karim Karim Wade ñeneen ak ñeneen gis nañ bu baax la façon dont ils ont bouclé les enquêtes ils ont également euh, collecturer euh, la la procédure ñu gis bu baax a baax anam bi ci dox ça veut dire que day teyal xel que ne est-ce que amul la mainmise de l'exécutif euh, ci appareil judiciaire loolu aussi ce sont des questions qui sont qui qui qui peuvent être posées maintenant li nga xamante moom moo ci am solo mooy immunité bi ki ñu ko muur aussi. na bàyyi xel leen gis nga buñ la muuree malaan kiirlaay kiirlaay dafa am solo baat bi sa fi impôt wala fay kiirlaay kon yow ngir yàlla fexeel ba jom ma def luñ lay gàkkale ak lu ñu lay mais maintenant laa aussi dama naan est-ce que kon mbalaanum kiirlaay bi am na solo est-ce que tamit du nekk prox ndoll ngir ñeen ñi profito ci daal di ci dugg wante aussi lenn am na mooy day ñëwaat ci justice bi est-ce que également gis nañ fi le cas de Bougazeli euh, Bougazeli député faux euh, billet affaire de faux billet mu daal di eh, ñu dindi mbalaan mi ki la doon sax dañ ko forcer mu démissionner à l'Assemblée nationale mais euh, est-ce que justice bi xam nga damay ñëw ci rappel parce que euh, Mbalane Kirlaay bu ñu nee nañ sax Macky Sall immunité parlementaire moo ci battre le record parce que booy xool depuis Abdou Diouf ay ñoom Alkali Cissé ay ñoom président Ablaye Wade ñooñu euh, jëm ci nguur président Ablaye Wade ci ñoom Ablaye euh, kii Alkali Cissé euh, ak Moussa Tine ñeneen ak ñeneen ñëw ci président Macky Sall Barthélémy Dias ak ñeneen ak ñeneen yu bëri jaar na fi Macky Sall am na ci presque neuf personnes yoo xam ci ay ndaw dinañ seen immunité parlementaire ci durant magistère maintenant li ma ci bëgg wax mooy est-ce que amal nañu importance est-ce que immunité bi am na njëriñ aussi est-ce que seen dindi ko tax nañu am résultat ci li ñuy wër ci wàllum yoon xamul tax ma ko parce que bu ñu xoolee le cas du euh, de l' ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall l' ex maire de Dakar mais xoolal est ce que mën nañu teg 15 ci li ñu ko doon toppee c' est à dire que amul ñu sens est ce que kon foofu justice dox na liggéeyam Karim Wade milliards amul benn 15 bu ñu teg ci taabal ji ne jëlee nañ ko ci. dina ci ay mbalaan ki ba ñenn ñi sax ña nga ca keppaaru président Macky Sall agent judiciaire de l'état ba di euh, ministre de la léegi Antoine Félix Diome di toogandoo conseil des ministres ak Oumar Sarr ma ñu dindi woon mbalaanam toog ak euh, kan Abdoulaye Balde ak yeneen ak ñeneen est-ce que loolu kon am na importance est-ce du dañuy jël suñu appareil judiciaire bi di ko politiser di ko fowee te justice dafa baax ci réew réew bu développé justice mënu ñàkk yoonal parce que àdduna moo bindoo noonu il faut que mu am. yoon am na ñuy jalgati loi loi daf liggéeyam la loi elle est impersonnelle amul kenn ku moom ku ko moom et nul n'est censé ignorer la loi maintenant dans ce cas de figure yoon dafa war a am ci réew di tëdd njaaxaanay ndey ji seex ñi jàdd ñu jubal leen moo tax ñu ne ay maison de correction corrigé waat leen ainsi de suite am ay loi le pouvoir dafa war a gouverner moo tax séparation du pouvoir c'est très important dans un pays qui se veut démocratique état président euh, day gérer état Euh, gouverner maintenant assemblée nationale di natt luwaa yi di di saytu luwaa yi di nattal nguur gi di ko saytu di ko contrôler ni muy doxale maintenant appareil judiciaire di saytu askanam ndax ñii ñi ngi jaar yoon wala ñii jaar yoon ku jaar yoon mu ñu bàyyi ku jaar yoon ñu corriger maintenant réew moo xamante ni le ministre de la justice est nommé par le président de la république le procureur de la république dépend du ministre de la justice les juges dépendent du, du procureur de la dernière ci RH bi maintenant loolu ban yoon lañ fa mën a am ni mi ngi dox dans la logique xel day tey mooy li ma wax sànq depuis ñu dindi sa immunité parlementaire yëpp à part tëjub kaso résultat ba mooy tëjum kaso mais Karim Wade di delloo siwul de amul bu ñu teg ci taal bi ne 15 bii lañ ci jëlee amul xalifa Sall amul donte moom nee na man du man dong moom daa wax ne moom wet du man dong njëkkawuma ko fi mais est-ce que lañ ko doon toppee ci ay deniers publics am na lu ñu fi teg ci taabal ji fii amul amul amul dañu tardé ak des marathons judiciaires à la limite li may waxaat rek immunité parlementaire kon député dañ ko war a taw député dañ koy naw bu njëkk bu ñu nee diw député la wala booy ñaana soloom sax daan naan ko ah yow de doom yàlla na nga màgg ba nekk député yàlla na nga màgg parce que xam nañ ni kooku dafay teewal askan dafay war a teel euh, maanaam liggéey réewam wante député yoo xamante faux billet jàppale flagrant délit yaa nga fan yaa nga sa di nelaw naan ataaya importance dañuy nasaxal rek di ñu tardeel ci lu amul importance ci mbas mi nekk suñu kanam ne jonn mënuñoo fexe ba génn ci ñu ñuy indi ci yeneen ay problèmes yoo xamante ni ça nous retarde